léegi dinaa la nettali. Mm. loo xam ne Mohamed Bun Abdallah Jonn moom ma ko nettali man fàtte woon naa ko nee na Macky da ko yónni sama kër mu nekk directeur de cabinet ki nekk premier ministre nee na ma jox ko benn montre ak benn barkeelu grand boubou ne ko noteel lii ma lay wax ma Macky mooy remplacer Abdoulaye Wade Bun Abdallah moom ab fàtte loolu man fàtte woon naa ko <laughs> ma ne ko te bu ko bu ko remplacer bu ñu demee ba ca kanam dañuy taxawal luy nuru coalition du parce que loolu amagul. bëgguloo Macky jóge fi. non non non Macky jeexal na de. ah déet nee na jeexal na ci constitution bi déet est-ce que lu xamu ci dara. Ah. xamu ci dara doon jël décision rek ba weer. donc 2024 Macky Sall jeexalul sëñ bi. <laughs> waaw may mun a. xamoo sëñ bi nag sama xel dalul xamoo lu tax. Ah. parce ñu ngi fii ñu ngi commencé naan dinañ reporter élection yi politiciens yi di ci dox. te yow li may wax sant ba tey dafa mel ni daal élection yi daal lu ni mel mën na am. déedéet problème bi mooy leen hmm. xam nga am na loo xam ni c'est individuel xam na am na loo xamante ne bi c'est personne man la engagé man la engagé sama analyse fii réew mi toll nii. Macky ku ko bàyyi woon donte ñetti at la. Hmm. donte ñetti at la sax mais dama lay damay dama lay yóbbu ci sama philosophie xam nga Macky day jërëjëf xam ne moom a yëngal waaw xam nga Macky moom du ca puuca Macky Macky Macky Macky dafa dafa kii jàmbaar la xam nga jërëjëf Serigne Touba ji jërëjëf Serigne Touba dafa may yëngal. Hmm. léegi nag. ni mu xamee ne daf may yëngal. ci la may téye fi la may téye. fi yeew. kan ma gis ah jërëjëf Sëriñ Tuubaa la la téewee. la ma téye. Hmm. léegi jërëjëf Sëriñ Tuubaa fukk ak ñaar la. 12 ans yooyu mu koy waaj a matal. comprendre. Hmm. muy waaj a matal 12 ans yi. Hmm. ba noppi ni du bokk. mais du bokk rek la wax mais wóoru ko ba xam élection dina am wóoru ko daf ne du bokk. léegi nag bi mu mujjee wax jërëjëf Sëriñ Tuubaa waxul jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf téeti la wax. donc mun na ci jërëjëf a teeti ñaata ñaata at la <laughs> jërëjëf a teeti ñaata at la comme saa opposition bi dootu ñu nelaw de. <laughs> ah man daal ci man daal damay wax rek li nga xam ne moom la gëm jërëjëf a teeti la wax. waaw ah. jërëjëf Serigne Touba la daan wax muy fukk ak ñaar mu yokk ci teeti. téeti bi ñaata la. <laughs> teeti bi mën naa nekk juróom mën naa nekk ñett. Ah. parce que parce que teet yi da nga am deux points séparé dafa am deux points am deux points nuqta tey ni nuqta tey ni am benn alif réduit ci diggante bi mais bu ko ba ko ñëw par point deux points alif réduit deux points cinq la bu fekkee collé nga ñaari points deux points yu njëkk yi mu nekk benn alif réduit mu nekk ñaar nga collé ñaar yi mu nekk benn muy ñett hmm. loolu mooy sama analyse mais loolu mi ngi dépendre ci moom moom mi ne du bokk hmm. léegi nag xaaral sama analyse laa wax loolu d'une part d'autre part d'autre part mooy réglage yi ma la waxoon. foog ñu mooy pour man am na yu bari yu ñu war a régler bu mënee bu demee ba mënta ñàkk ba mun te ñàkk ñu def benn référendum à la place de l'élection de l'élection présidentielle parce que parce que ay réforme dafa war a am. Hmm. te élection général dafa war a am élection général élection bu ñu koy def élection général lépp la ñu war a lépp la ñu war a lépp la ñu war a kii. lépp la ñu war a annuler def élection générale hmm. waaw man loolu <laughs> loolu mooy sama philosophie